topp kaas yi six kaas mën a jàppee du baax yow ana nga ñëw tey maa yowee joxante eh, couleur rouge bi man fasal leen ma après plus tard dans quelques instants ku génn fii nooree ni ni tamit li muy ñëw seetlu ko de modèle bi nu mu tudd tam jibisi la wala jibisi la wala bi la ñaatam kaay yaa ngi Pape Cheikh a joxante ay bleu tey. waaw ah, bleu doré bi bleu doré bi. Ah. bleu doré bi rafet na ko génn fii. Fademba laa Linguère. ah c'est joli. magnifique non musóor rek waroon naa koo xàmmee. musóor yi rek waroon naa koo xàmmee. musóoram benn la Sénégal. magnifique jabar Modou Fall ji. <laughs> Oh magnifique. merci univers dévoilé. Merci C'est magnifique. Univers Voilà, Des Dévoilé. Pour la C'est joli, magnifique. Vraiment. Nata Ku def ni euh, AZ Asujai. Diagne daal yi Issa Diouf cheveux Yazo R Issa Diouf <laughs> Yazo R ah rafet AZ ah, couture pour taille basse bi sot nañ leen sot nañ leen magnifique euh, vraiment Mamadou Ndiaye nawoon fa woon bul bés bul laal bul yëngal filmer <laughs> rek yow da nga nii man maa ñëw ci lumière bi. Eh, waaw. bi bàyyi Modou la jëla jëla moo ci suuf doole gi noonu waaw kay fii la génn tey ci robe ak man bàyyi Modou Masata ak Masaya Ndak Chardon gis nga loxo